macha allah am na solo am na solo loolu sëriñ bi mm-hmm. sëriñ bi nag xam naa suñu deuxième euh, point waxtaan tey mm-hmm. dañu koy indi ci li nga xam ne moom moo di wàllum tabaski sëriñ bi tabaski dafa mel ni bëri na ay ngëneel la yooyu dul jeex ah bëri na ngëneel buy jub mm-hmm. ak buy dem bay jeex yëpp moom tabaski waaw ndax arafat ci tabaski sëñ Ibou dindi na bépp bàkkaar. moom taxawaay Arafat. waaw bépp bàkkaar. est-ce Arafat ci weeru Tabaski. Mhm. màggalal na jaam boo xam ne doon nga ñaan yàlla loo mënatu woon am. moom taxawaay bi. Arafat. Mhm. ci weeru Tabaski. est kartanal na jullit bu doon mi ngi daw ci jullitam sax. Mhm. junni yàlla defal nag ko. lu ko raw fopp di wéy arafat rek moom laa la wax waxaguma la bisu tëbaski waxaguma la yey xew ca tëbaski waxaguma la sa sëñ Ibbu ki nga xam ni tëbëski jot na sax mu woor ca ba ca yoor yoor ga est-ce que sëñ Ibbu ku fekke tëbaski santal mhm. tëbaski nga neelam weesuwul dara mhm. ba nu fexee ba remplacer xar ak nit doyoon na nga ne. dëgg la de. bu dul woon loolu taaw yi ko laaj dem na. <laughs> est-ce que. sabu nu paree ca taaw yi ñu ngi jëm feneen. wallaay. <laughs> kese. doyoon na nit di sant. Mm-hmm. ndawal ga sax amul solo. Mm-hmm. waaye derit jëy tuuru. Mm-hmm. yàlla gërëm ko lool. muy bis bu màgg di bis bu tedd di bis boo xam ni léeg-léeg nit ñi ñoo ciy teg seen bopp coono waaye bu nu xamoon bis bi li ko tax a jóg wallaahi amul coono wallahi amu ko amu ko yàlla xam na amu ko bu dee tabaski te yàlla rekkal moo la tax a jóg tabaski woo ngir puukarewu tabaski woo ngir wanewu tabaski ngir nii laa toll mhm. tabaski ngir mën naa ko mën mhm. naa ko sax boo ca tolloo xamoo li la yàlla defal mhm. li nga waroon sante mooy fekke ga dëgg moo tax bésuk tabaski res ga képp ku ci jàng yaasin ba mu jeex ba mu jeex nga tëje ko muhammadu rasulillahi nga nekk ca inna fatahna sëñ Ibou Yalla, xamna na ni man nga dund mhm. ba jahat, aduna do yor bir bu lay jaxal te ken dula hopere ce reska nag laa wax reste mhm. waaw reska mhm. <laughs> est-ce que <laughs> reska <laughs> surtout sëriñ bi saharma. bala dugg ci reska xel ba diko lak mhm. bul nangugul ni dag ko mukk ya mhm. fexel ba dagal ko sa bop nga dagge ko loxo balay paka di ko ling ci soxla nga dagge ko loxo waaw boko defare ci mun ko tege mhm. ba saf ko ba pare bala koy paka di lal fexel ba dagge ko sa loxo comme ni jigen ni di dagge non dedet nga baye xel loolu ci ki nga xamni ni yitel yitteel sëñ Ibou nee naa la. Mhm. mën na dund ba dee. bu doon mhm. mas nañ ko opéré it dootu kaa déggati. mën na dund ba dee yàlla suturaal ko ci biir buy jaaxal nit bu naan kenn xamul lan la dem naa fii dem naa faa. Mhm. mën na dund ba dee opération yàlla mën na ko ci musal dégg rek la ci am. est-ce que macha allah. sëriñ xam naa balaa ñoo ñëw ci xar bi sax. ngëneel ga nag. mi ngi tàmbalee ci yërmande ndax yërmande tax nu indil nu xar. dëgg la loolu nag jigéen ñi war ko dégg bu baax sax surtout loolu soo ma jëndalul xar ma dem sama kër xoolatoo yërmande yàlla sëriñ bi insistel tuutee ma dem sama kër xoolatoo yërmande yàlla sa nawle yépp def nanu ko te defoo ko pourtant amna lo kay nawlen tol ta amna lo xamni bu ko ay nawlem don def. du lu sa nawle def rek dang koy def. nit da nga nawlen tek mom ta mi ngi def lu bon ta wallahi bu ci nawlen te won ak nit musiba am. dafa am lo xamni nit nokay koy bàyyi xel rek. ta xol bis bi lu ko taxajuk ndax bo xame bis bi liko taxajuk do sonal ken deug la. kenn nag mhm. te góor ñaa ngi ciy stressé wu mhm. am na ñoo xam ni sëñ ibu mhm. kañ la seen montar gajo dox bu weeru tabaski duggee ah. kon tabaski day yóbbu montre kii montre horloge billaay ce que waaw billaay am ñoo xam ni <laughs> am ñoo xam ni bu tabaski jotee la jigéen ñoo xam ni yàlla xam na ne ni dañuy tàmbali fas seen kanam est-ce que wallaay dëgg la mm-hmm. waaw fas mm-hmm. seen kanam mm-hmm. waa ji commencé stressé wu di ko dund ci guddi ak ci bëccëg na waaw. waaw ñenn nag bu doon seen bopp la rek garaawul. Mhm. sama yaay yaa ko jëriñ yaa yaa ko daan jëndal. Mhm. wala danga nga ko koy jëndal. Mhm. waxuñu sax seen boppam ah. nangam sangam. est-ce que njaboot gi nga xam ni xamaguñu dara rek. ñoo yey taxawu. te loo leen taxawu taxawu xamal ni leen ni àdduna kat nit ku ne la nga am na nga ci yem. ndax loolu dana tax nit di màggaale ngor ak gore. dëgg la mm-hmm. sëñ Ibu. Mm. yàlla tegunu kenn tegul kenn lenn lu mu mënul laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha wallahi loolay dëgg. <laughs> <laughs> moo tax daal jigéen ñi sunu mbokki jigéen ñi. Mm-hmm. am ñoo xam ni nag. Mm-hmm. xaarunu sax. kuy def ñoom ñoo ca. am na ko xam ni la muy ñaan yàlla mooy bu sañoon yàlla suturaal ko. ba su teggee sax ab nat. ba alal ju mu xalaat jële fenn mu suturaal ci këram mhm. ba sax bu jëkkëram yoree ak bu yorul yépp mhm. moom sutura sos moom lay doxe am koo xam ni sëñ Ibu mm. jëkkëram leer nañu ko yorut mu mm. ngi tëdd sax ci ay or yoo xam ne jëkkëram a ko jëndal wala moo ko moom mm-hmm. war ci mën a suturaal njabootam mm-hmm. waaye da koy jaral coow baa mu tàppaas waaja ay coow ngir bëgg buub njabootam dem ca këram mm-hmm. ba tabaski ba paase du sax du sutura du ngërëmal yàlla du lu rafet ci deru jigéen dëgg la macha allah <laughs> macha allah am na solo des am na solo loolu sëriñ bi sëriñ bi nag balaa maa dugg ci ngëneel li nga xam ne moom moo nekk ci xarum tabaski damaa bëggoon ñu ñëw rek ci li nga tabaski mhm. ci muskalaf bi nga xamante ne moom la war waaw soo ko manee mhm. da ngay wut xar moo mhm. mat tabaski sëñ Ibbu boo ko sàccee amoo tabaski waaw boo ko sàccee amoo tabaski boo waxul lu dul dëgg ba nu jox la ko amoo tabaski. moy mooy dóor. sama maam daa dee ba nu jox la ko amoo tabaski. est na nit ñi bàyyi xel loolu. Mhm. Mhm. <laughs> Mhm. ah. ah dëgg la de. <laughs> ah. sëriñ bi carte nag. <laughs> wallaahi loolu sax du tëbëski ah, même boo ci génnee carte. déedéet. xaalisu carte lu araam la. dëgg la. lu araam mënu dem ci lu dagan. Ah, dëgg la de. <laughs> est-ce que nit dafa am fu muy toll mhm. même kiy liggéey sax ci li nga xam neexul yàlla mhm. yàlla dafa am rek sutura sum ko ci dëxañal waaye ma naan ko fexeel wut leneen dëgg la <laughs> dëgg la waaw dafa am yoo xam ni Ibu mhm. lay nit nara darti darti nara xool chiffre bu say bët nar ci miyeeb boo ko demoon di ko taqale lu mënti doon am nga jël gëmal ni mhm. sëñ Ibu jamono ju ne lu jaam làmb sa poos fekk ko ci gëmal ni daa gën ci yow dëgg la bu ko ëppoon soo moytuwul dem àllaaxira mhm. na nit ñi bàyyi xel loolu dëgg la <laughs> lu waay làmb ci sa poos fekk ko ca mhm. billaahi gëmal ni daa gën ci yow sëñ Ibu am na ñoo xam ni bisug Tabaski la nu war a judd bu nu ko paase woon nëpp ci seen biiru ndey baanu dem dëgg <laughs> na nit ñi bàyyi xel loolu dëgg la Mm-hmm. yàlla mooy séddale. Mm-hmm. ndax loxoom bi rekk moo mamate fépp. Mm-hmm. sëñ Ibu. nit. sañ nga nag di tawasul ci sa boroom. di bàyyi xel sa boroom. di woo sa boroom. <laughs> est-ce mu lay dimbali ci sa bopp. sëñ Ibu man li ma gëm. kenn warul jaaxle. est kenn warul làmb sax doo daj nag <laughs> ci gàttal. <laughs> kenn warul dem wutita amoo man loolu laa gëm. est-ce que ndax fi ngay wuti ki ngay wuti dafa am. Mhm. te joxul ndey joxul baay joxul doom. dëgg yàlla moo yor li muy yor. Mhm. sa loolu nag moo ci war. Mhm. waaye tëbaski ngir dóor. tëbaski ngir nax nit ci alal. yóbbu ko. tëbaski sëñ ibu ngir ni am na ay miskin yu amul nu jox la nga ni ko xëddaan ni dëxëñ lekk ko. wallaahi. Mhm. yaay yow da nga am sens su fekkee tabaski waaye tabaski woo. <laughs> waaw nanu bàyyi xel loolu. est-ce que tabaski lu sell la koy def. Mhm. kenn du jël si bisug santu yàlla di ci def lu ñaaw. dëgg la. <laughs> su dee xam nga bis bi lu muy jariñ moo tax sëñ Ibu yàlla nag ba loola lépp amee dafa ni defe ko ni nga ko mane mu xam ni ñépp duñ ko woon man mu koy wàccee ba fi mu war a yam am foo xam ni dañuy wàcc na la wallaay dëgg la de <laughs> est <laughs> ren gii yàlla na yàlla suturaal jaami de waaye bu dul loolu ah dibitiri yi de ma noon bañ wàcc de dafa tar dafa jaxasoo. dëgg la de. loolu la moo tax nag gaa ñi tàllalaat loxo yi yàlla. amiin jeexalul dara nag. dëgg la. <laughs> ndax la mu yor du lu nu yàq. ñun rek ñoo mën yàqal sunu bopp mhm. waaye moom yoru lenn loo xam ni mhm. loxo man na cee daj xel man na cee daj mhm. kon yàlla na nanu xettali ñun ñëpp sëñ Ibu inchaa allahu rabbi bu nit ñi di bàyyi xel lii wallahi tabaski yëpp a neex macha allah <laughs> am na solo de waaye sëriñ bi sànq sa biir wax yaa ngi doon tudd reesu xaru reesu xaru tabaski ba wax ci eh, ngëneel li ci nekk est que am na yeneen ngëneel yu nekk ci biir xarum tabaski bare na wextaan gënu naan sax warul jaxasoog yàpp bi wextaan waaw ah dégg naa mbuubeen di dëgg dañ koy teel a dagg. waaw. <laughs> wextaan googu. moo gën a doy waar sax looy gis nag. est-ce que si naka. wextaan googu sëñ Ibu ku la liggéey dem àllaaxira moom wextaan bi. weextanu tabaski googu ngay gis wextaan wi ci xar mi. est-ce que. <laughs> rawatina ci bisu tabaski. rawatina bisu tabaski. mbàqum xar ci tabaski. Mhm. nit am na lu mu ciy xaatim lu mu ci mënul def amut. moom mbàqum xar mi waaw. Mhm. lu mu ci mënul def amut. est ci mënul def amut nag. est-ce hmm. moom mbaaxum xaar. est-ce googu. Hmm. am na noo koy liggéeyee. Hmm. waaye boo ko doon bind doo binde big footer. xalima ngay wut. ah xalima koy bind. waaw. nga boole kook juróom-ñaari lañ set. wóor na yàlla ku la liggéey dama laaxir. fanaani sax juróom <laughs> wextan nge laa wax de mhm. te moom la ñuy jël léeg di ko sànni ci kàmba gi waaye am na ñoo xam ne xam nañu li xew mhm. <laughs> waaw moom ngi noonu mhm. <laughs> moo tax ah te booba pourtant du sax looy sangoo ah. sa tur nga ci woo juróom ñaari yoon rek ci lañ seet bu ne nga boole kook moom daa di di daa di jël wextan gi rek tooyale ko lañ seet yépp nag sëñ Ibu hmm. yaaya ja des sax sañu nu ko wax <laughs> waaw yàlla xam na ko nag wallaahi ku la liggéey mhm. billaahi te bu fi doon dëgër bopp di fi yàgg yàggalu mhm. barke yonent bi mënatul xam ci àdduna bi lu ciy xew ci bët yu muuru mënatu ko xam ah, bu fi buy dëgër bopp di fi jéem a yàgg waaw xam nga nit léeg-léeg war a war a dem sax di fi yàgg-yàggal ah, ci ci waaw ci ci ñàkk bañ toogam ak mhm. jugam gur kii ndax léeg-léeg nit tooñ ba pare wëlbatiku di défendre boppam dëkk la waaw <laughs> ah, moo tax na nit ñi di bàyyi xel tooñ baaxut waaw te loolu du dëgg du yoon mhm. waaye dama ne la ni mhm. lii ma la ci wax waxaguma la ca geen ga waxaguma la ca baat ba waxaguma la ca béjjën yi waaw waaw waaw am na solo mm-hmm. <laughs> am na solo loolu sëriñ bi am na secret bi ñu mayoon daaw ci tabaski bi. Mm-hmm. doonu ko mayaat rek ñu fàttali ko mbokk internet yi. <laughs> secret bi xamatuma juste banati la woon. mooy génn xaru tabaski bi. waa génn xar ak béjjënu xaru tabaski daal. Mm-hmm. sëñ bu képp ku jël béjjënu xaru tabaski. nga jël benn béjjën bi def ci yaasiin. jël benn béjjën bi def ci waaxin. sëñ Ibu doo am daa doom juy daanu rab ci sa kër tabaski lu mu tar-tar boo amul téeméeri at tëdd ko ci sa lalit daan la fekk ci sa kaw lal ni la sa njogu tabaski ngi nii aajowul nga mën ko wuti ak nga bañ ko mën wuti <laughs> boo amul woon jenn doom ji ko defalit jaamu yàlla dana ko def <laughs> waaw te it genn xaru tabaski amul kër goo koy suul nu fay xew mennum xew muy soof moom genn xaru naan sama xew mi fi ma fekk baaxut mm. doo ko dégg sëriñ bi dañ koy bind daal am lu ñu ciy def dañ koy ñëw <laughs> boobaa ci genn gi ngay jël am loo ci tëfli mm-hmm. waaye juróom ñaari salaatu ala bi mm-hmm. baa ñett lu mu mm-hmm. néew néew nga ciy def ci genn gi fi nga dagge genn gi ak ci bopp genn bi waaye boo koy dugal doo ko lem dangay ngay dangay fexe ba nu geen gi toll mhm. dangay gas kàbba ko toll doonu nga sam nga sampa geen gi même bu mhm. daanool boppam ci biirit it baax na bu la neexee nga tëral ko nii baa nga samp pour mu nu mu daanoo baax na waaye na liibar ci biir rek <laughs> <laughs> macha allah am na solo am na solo am na solo loolu sëriñ bi waaye sëriñ bi eh, bi ñu jigee ci li nga xamante ne moom moo di eh, tabaski bi sëriñ bi nag dañuy ñëw ci li xamante ne moo di eh, jafe-jafe yi àdduna bi sëriñ bi mhm. kan moo war a tukki est-ce que ñëpp war nañoo tukki déedéet am na ñoo xam ne waru ñëw tukki ñëpp waruñoo am doom dëgg la ñëpp nu am alal dëgg la ñëpp waruñu sëy mhm. ñëpp waruñu tukki am na ñoo xam ne bi ñu tukkee la seen war tàmbale di yàqu dëgg la <laughs> waaw mhm. am na ko am këyit mhm. waaye boo ko laajoon un dollar mhm. wala un euro mënu ko génne am na këyit am koo xam ni am na këyit waaye mënul fexe ba am li mu bëgg ah am na ko am këyit te mënul fexe ba am wërsëg nag ñaara am sëñ Ibu wërsëg wu dox ak wërsëg wu dee ak wërsëg woo xam ni dafa yeex am na koo xam ni Europe defu fa ay weer dafa am kayit am liggéey boo xam ne nit def na fa ñaar fukki at tamasu ko am. dëgg la dëgg la dafa dem rekk ñëw. dëgg la de. <laughs> am koo xam ni sëñ Ibu. Mm. droit yi ni koy laaj ci asir yëpp fay na ko. <laughs> waaye mënul fexe <laughs> maafewul supp kànjawul. dëgg la de. waaw. am koo xam ni dara manqué wul nag li wër ci këram fii ci réew mi yëpp mi ngi koy def mhm. waaye mënul fexe mhm. ba jug ñëw mhm. sëñ Ibu nit appartement la dafa am salle am chambre am pantre booy nettoyé bul bàyyi fenn boo bàyyee fenn rek su poussière bi naawee dana dugg ci foo xam ni day indi ay complication <laughs> nit noonu la demee mhm. Mhm. am na ñoo xam ni wërsëgu toog la nu am jamono mhm. fenn la waaye loo yor ci euro man nan la koy wecc bu nu tukki woon maanatun wecc kenn <laughs> sëriñ ma tooñ sama mbokk bo bool am ñoo xam ne balaa niy weccee <laughs> waaw waaw sama mbokki bool bool waaw am na ñoo xam ne léeg-léeg tubaarkàlla booy xool seen habillage doodu da yaakaar waaye loo leen laaj ci million dañ la koy jox. yàlla xam na am ñoo xam ni sëñ Ibou feeg demunu mënunu wax kenn ci ma. dëgg la loolu la leen yàlla bindi wërsëgu tànk dafa am ak wërsëgu toog sëñ ibu am na koo xam ni doomam da doon jàng fii première première bu ne jël na ko. Mhm. ba mu demee jàng ci réew ma la commencé tiit. commencé crise mm-hmm. commencé di jël ay comprimés yu kenn xamul yii may wax na dama ci xam daal. dëkk la. Mm-hmm. fekkati yoo. Mm-hmm. dem nga sax mën na baax waaye période baa baaxut. dem nga mën na baax waaye réew ma dem moo du réewam. dëkk la. ah oui comme ni ngay dëkk ci kër rek. am na koo xam dara mosu ko wokk. dafa toxu rek di feebar rek. dëgg la. <laughs> est-ce que. waaw yooyu dafa am. am na koo xam ne dafa toxu rek ne ni ko dàq na la sa liggéeyukaay. <laughs> tukki it noonu la. est moo tax du ñëpp war a tukki. Mhm. am na ñoo xam ne seen wërsëg dañuy toog. Mhm. fu luñ ci bëgg am am ko. dëgg am na ñoo xam ne mën nañ am fukki boutique ndegam ñu ngi ci réew mi. Mhm. bu ñu tukki woon benn bu ñu sarse rek dañ naan la sëñ bi de man lu ma sarse rek loolu daan lu ma sarse loolu daan. boo ne kooku jox ma la sama mbokk. te yow yaa quelque. est-ce am na koo xam ne ba mu tukkee. Mhm. yor na. waaye dafa waroon ñibbisi si saasi. Ah, ba mu yoree daa waroon ñëw. waaw dëgg la waaye comprendre mhm. moo tax day toog ba si yàgg ne la billet bu ma yoroon jaay naa ko dama daan yor lu weex tàll. waaye sëñ bi fi ñu toll boo ma fëggee yoruma dara. fekkatu yoo am na tawat joo xam ni moo naan ko li nga yor lépp fi lay yem. Mhm. Hmm. moo <laughs> am koo xam nit ba mu tukkee. Mm-hmm. dafa jekkoon ci war a jug jugut jigéen lay sëyal coow am nu yóbbu leen ci yoon nu nu videel ndaw sa lépp ndax am na ñoo xam dañoo tukki waaye dañoo jëli de. Mm-hmm. waaw. am na ñu dem jëli. <laughs> am na ñoom njaboot seytaane lan dan lay fekk si yiw ci sa yaaram. Mm-hmm. nga sëy ñoom nu indil la coow tappaas la. yóbbu la ci yoon. la nga liggéey ñaar fukki at. ni ni ko tungaañ. nga torox. Mm-hmm. am na ñoo xam ni ay dof la nu rab jàpp leen du rab rek ay dof loo nit de. <laughs> déedéet na nit ñi di bàyyi xel loolu. Mm-hmm. am na ñu toromatisé sëñ Ibu. njaboote mm-hmm. leen ko yóbbi. ndax choc bu la jëlee kaw. moo gën a gaaw ci rey booy jàkkaarloo. <laughs> est-ce day am fekkati yu. jotaay toogaay bi moo baaxul. Mhm. moo tax nit am na yoo xam ni sañu ci dugg te gëstuwul. dëgg ku lay wax loo ni yii bul ci dugg moom wallaahi bul kaaba moo lay dugal. dëgg la. Mhm. man dama ko gëm. Mhm. torop. ndax dama xam li may wax nag. moo tax sëñ Ibu. ku ci nekk dafa am frontière boo war a yem. dëgg la. na ñoo xam ni. seen rab jéggaloowu leen ndox mukk bu nu defoon aller bu nu retour toog ci. fa la ñuy des. est <laughs> <laughs> moo tax nit day gëstu boppam. <laughs> nit day bàyyi xel boppam. nit day xam moom la kan. lii ma la wax nag mooy nit. nit du kenn ku ne dafa am nu la yàlla bindee. du li Samba def laay def du li Ibu def rek laa war a def. macha allah ku ci nekk say bagages yi bopp. am na solo am na solo waaye sëriñ bi loolu lan mooy solution bi ginnaaw bi nga xamee sa bopp ba noppi. waaw nit da ngay dem xool sa bopp ba pare. Mhm. buñ la waxee ba nga jot say résultat analyse. Mhm. nga soogay xool yéen médicament. nga war a jël <laughs> dafa am solo. waaw. ah loolu dafa am solo mooy tax nit ki. benn amul paan bu koy jaaxal boobaa. paan bu mu am rek day xam ni lii moo koy réparé. <laughs> <laughs> ah waaw ah, ah oto boobu mësul ubbi nag capotam su paane

da ngay xol ba xam yoon bi baxna amna ko na ku yàlla mayoon lool ku tudd bàyyi dogowaar moo nga dëkk ci waareen. ndaysan ku yàlla mayon ci lol mu ne la demal demal mu ne la togal toogal. est-ce que waaye ni ko yàlla may won gor gog may nako ay jami yàlla fi est-ce que yoo xam amul len lu ni wax ngir seni bakani dëkk la. Mhm. <laughs> est que. ah te wax dëgg yàlla koo xam ni su tukkee boppam moom la tukkeel. Mhm. lu mu am boppam la ko amal. Mhm. ban intérêt moom la lay amal nga naan ko toogal ak ay xale mas na ni tukki fii man leen yoon wi leerut. ba nu demee. réer nanu de pourtant ñaar fukki fan ak benn. est-ce que. waaw ñaar fukki fan benn sëriñ bi ku ko leer lëndëm na. waaw wallaahi <laughs> ñaar fukki fan ak benn réer nanu ko. est-ce que hmm. est-ce <laughs> <laughs> ah tubaarkaal ah. c'est-à-dire que ni sëñ Ibou yëpp yëpp dafa am yoo xam ni na ko nit ñi di bàyyi xel mhm. waaw te bu may wax ban may woo dima ko wax lii laa ko ci tegal mhm. bi may bi may woyu téléphone mi ngi toog ci wetu waajuram mhm. bi waajuram ñëwee it ni ma def ci ñaankat danoo réer dama ne ko wallaahi duma ko ci def waaye daanu ñëw sëñ Ibou man man ma nit nit soo gëmul samay wax man mii wax damay gëm samay wax nag. wallaay wax dëgg yàlla wallaay waaw. ah man nag xaaru man balaa lay kenn di gëm dangay gëm sa bopp. <laughs> waaw sëriñ ah loolu kese la. loolu kay ci fayda la bokk sax. <laughs> ah waaw loolu la loolu la. <laughs> waaw ah, pourtant. ki ma ci doon sant ñaan suma yaay la. Mhm. ndax mbokk la ci man. dëgg la de. <laughs> loolu laa ko wax. est-ce <laughs> ah, waaw loolu kese la. <laughs> est nit moom bul xaar kenn di la fonkal say wax. Mhm. yaay njëkk a fonk say wax. Mhm. bul xaar kenn di la fonkal sa bopp. yaay njëkk a fonk sa bopp nu fonkal. dëgg la bul sonn ci lool bul lijjanti ku la fonk ak ku la fonk waaye fonkal sa bopp. dëgg la est am na solo de. waaw am na solo loolu sëriñ bi. Mhm.